man Mor Ndiaye laa tudd. Mor Ndiaye. waaw yow chauffeur nga wala lan nga. man chauffeur la chef de garage la. Hmm, ban garage. ah. ban garage. ga garage su Diawbe. Diawbe. mais dama la bëgg a junjee rek ci accident bi. dégg nga. waaw. accident bi oto bi accidenté. chauffeur borom oto bi. moo mayul jàmm chauffeur si ay chauffeuram. parce que accident yi guddi yëpp moom rek moo ko du horaire yi du horaire amul horaire bu yëpp bi génn accidenté hmm. horaire yi bala ñuy ñu bi am na sa horaire yoo xam ne ña ngay nalaw yeewoo guñu hmm. dégg ngoon gi la ñuy yeewu mais boo ñëwee buntu Pikine hmm. bis yi ko di fa taxaw pour guddi yi maam Diop yooyu ñooy tegle huit ba minuit ci guddi di dàqe kon maam Diop moom oto yi moom oto yi doo ba koo séddin ñaari oto yëpp moo moom non non benn bi moom benn bi ki moom sax dafa gaañu fan yële bi ki des bi doon dem Vélingara mhm. boobu ki ko moom dafa gaañu fan yële booy Baba Galle moo ko moon mais dafa gaañu fan yële mhm. mais gis nga bis bi des maam Diop mhm. ay otoom huit la ñuy teg taxaw buntu Pikine fees fa dell di dàqee gis nga bu huit heures jotee boo ñëwee taxaw poste yaare ci kaw point bi bis bu la romb di dàq wala aras oto maam Diop la dàqee di leen ko xëy di dàqee yooru euh, xott oto yooru xott dàqe mooy lan dàqe mooy lan. mooy yoo ñaari oto yu jiit laa di dàqante. mooy di njëkkante daal. waa di njëkkante. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. ñu génnee yoon bu ñu gisee ginnaaw si ngeen dañ koy yab. bu ñu gisee ginnaaw bu jëm tàmba dañ koy yab. bu ñu gisee ginnaaw bu jëm Kédougou dañ koy yab. bu gisee ginnaaw bu jëm Kolda dañ koy bu ñu ba Kaolack di coowoo ginnaaw yi. Mm-hmm. dégg nga. mbaa ko ci gi dem ba Tamba wala Koupantou ñu yàqale tournée. dégg nga bu ñu xëyee ci fajar gi laabaat puusaat laab bi ba jaar oto bi dawalaat oto bi wut si Dakar boo ñëwee Dakar ay deux heures trois heures ngay talal ngay taxaw añ ngay tal lépp yaa ngay xool foo mën a yebe ci waat pour foo mën a régler te distance ba yor waat ci ngoon gi xam nga bopp bu nelawul bopp bu nelawul méritewul deful méritation du ko attan te maam Diop da embauché safoor bu mag parce que baayam transporteur la woon boo xamante ni safoor yu mag rek la yor yoo xam ñoom ñëpp mën a dawal Mm-hmm. mais booy bi am dafa ne xaay dañ ko war a am xaay bu bëri ay milliards dañ ko war a am léegi moo tax saburi baay bi mag yëpp mu dàq leen di am mboos ay xale yu ndaw yoo xam ne dañuy soog a am permis dañuy soog a am permis di leen dàqeloo ñuy yooru Dakar Kaolack ba Paskore wa ilaa ñuy jóge fii ci guddi ñu yooru ba Koupentoum wala Koungheul ñu yàqalee defaat demi tour xanaa moom sañoon la doon dajale barki bi dugub kàmba la doon dajale fa la taxul noonu jël dajale bi mu ngi fa départ ay minuit mais accident yi moom du problème transporteur bi la di même chauffeur soge ci xale bu ndaw man 46 ans laa dund ci transport tout le territoire Sénégal internet bien dégg mm. mais soog bi nañu waxante dëgg ñun ni transport yi ñoo war a bët. bañ di xool nit ki am na xaalis ñu koy al toppee di ko wax loo xam ne dëgg wala déet ñoo war a xool suñu mbër wax la indi accident yi mm. saboor si ñun saboor si ay saboor pilote lañ yore ay xale a dawal mm. la mënee dawal loo ko indil mu xeeb ko ci loo ñu jóg léegi yéen ñun chef de garage xam nga ñun mënu ci dara ñun seet ñun boo ñu ko ay ñu jiite ay ñoom góor a xuma ñëpp parce que dañoo jël transport bi politisé ko mm. def ko ay politique état bi tamit buy laajte tamit day woo ñi xam ne ñooñu ay politiciens la xam ne xaalis moo leen ci transport ñu di leen politique ñoom la ñuy woo mais buñ dee woo base bi ñi nga xam ne ñoo dund transport bi man mii da koy dund naa transport quarante sept ans naa ko ci transport Sénégal hmm. interurbain tout le territoire du Sénégal hmm. am déet mais ñun bu ñu dee génn suñu xam-xam ci transport sax dañ koy dañ ko duñ ko nangu léegi yow ban léegi yow conseil nga bëgg a jox euh, chauffeur su ndaw si nga xamante ne dañuy. chauffeur si wax ay jàmbaar yi mais transporteur yi ndaw xam ne dañoo liggéey seen alal dañoo judd fekk seen baay yi am fa alal am ay oto ñoo war a may jàmm chauffeur yi chauffeur si di nelaw ku ci amul horaire nga jox chauffeur muy dem di bi boo ku ci am nga leen di yemee sa horaire horaire yëpp dañuy nelaw ba doyal lekk ba suur sangu ba set jóg yof ndànk seeni horaire jóg ndox ndànk. tey aussi horaire que kii naa yi léegi wax tàngoor yi bala ngaa xëy balaa tàngoor yi di nga àgg fa nga jëm. nga foog nga foog ne ñoom tamit amuñu si seen part de responsabilité ku nelawul nan nga a ñoom chauffeur yi ku nelawul noo a. xam nga responsabilité bi man damay dégg ñiy toog ci télé di commenté ak mm. xam nga ko mu njëkkee. Mm. ci bi. Mm. parce que boo xoolee ñun sunu classe gi bi ñu am permis bi ñu dugg ci oto. boobu booy passé permis téeméer ngay fay dégg da nga daan ñëw ubbi buntu oto di yëg ci coussin bi rek ñu dàq la mm-hmm. da nga daan ñëw toog ci coussin oto toog sa comportement ñu dàq la mm-hmm. daa nga gis ku passé ak permis ñaari at man maa sama xarit boo xam ne passé na ñetti at ñu koy dàq mm-hmm. ñu koy dàq te boobu téeméer lay fay oto bi koy passé la dégg ñu ciy nekk biñ demee ba nga xamante nag indi nañ permis arrangement boo amee cent mille ñaari yoon permis ñaari yoon conduite ñu jox la permis permis mel na marché Sandaga loolu indi accident yi ndaw parce que da ngay gis safoor boo xam ne du jàng code du jàng code daal xamoo dara langul ñun bu njëkk bi ñuy lange da nga daan lang coro boo mënee dawal da ngay jënd sa code laaru gaaras boo rag yaa ngi sa ginnaaw toog yor sa code laaru di ko jàng mm. ba mu mokk loolu amatul xale yi ni ñuy amee permis moo yomb mm. oto école yi ñuy jàngale oto yi tamit man ànduma ci transport en commun ak oto école bokkuñu mm. ñun bu njëkk da ngay jàngal nit ba mu am permis nga di ko teg di ko former di ko former ba mu man a dawal léegi ki oto boobu mu doon lang sax nga jox ko mu yor ko mu yor ko mais loolu amatul nit ñi ñoo jël alal jiital ko ci métier mi. léegi yow ban appel ban appel ngeen def ci état bi. ban appel laa reer nañu wax transporteurs yi ñu may sëboor si jàmm nañu may sëboor ñu amul ay horaire hmm. bëgg di am semaine trois cent cinquante mille wala quatre cent mille nañu may sëboor yi jàmm mais sëboor yi amee horaire di soo ci benn horaire buñ la accidenté na. Hmm. parce que ñoom heure dañuy jóg heure dañuy départ. baax na ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. mais rob maam Diop boobu ak santé nañu dugg ci biir kër googu ñu wuri kii la ko ah wuri maam Diop yi consigne ñu laaj leen. dëgg la. bu ngeen defee enquête bu xóot bu ngeen ñëwee ba fii ko mm-hmm. bu ngeen ma woowee ci numéro bi man mm-hmm. dinaa ak ñeneen ñu gën a leeral. jërëjëf Mor Ndiaye. waaw.